dëgër nga ay nationaux la ñuy am yu dëgër pour ñu mën a industrialiser dëkk bi embaucher doomi dëkk bi créer de la valeur ajoutée et des richesses léegi ndax kon secteur privé international bi moo gën a am gëdda am les multinationales que le secteur privé national su dee ci ay action lu ñu def secteur privé national moo ëpp junni yoon junni yoon wax dëgg yàlla. lan ngeen def. ñun loolu lañ fi deful da nga ma naan ma def loolu ngeen def déedéet déedéet li ñu def li munu su ma la ko waxee kii secteur privé la fii ñu toog déjà yaakaar naa lii ngeen produire sax secteur privé la dégg nga kon lu ñu deful la ñuy wax. da nga naan ma lan la secteur privé international bi def bañ jox ko gëdd. waaw kay loolu laa la wax man lan lañ. Hmm. xam nga lan lañ def dañoo am ku jàpp seen mbagg mooy de naan euh, xaw ma liir. liir bu neexee. seen i réew ñoo jàpp ci ñoom. joxdal ma bu la neex rek ma jox la soo ne chinois yi lu tax ñu am fi doole gouvernement Chine moo ñëw jox état xaalis. jàppale leen leen protéger ku fi am problème mu den lijjanti ambassade bi di dugg ko génn leen wutali audience ñuy dégg génn ñu am seen i banque am seen yëpp boo ne maa marocain yi loolu boo dee turki mais ñoom ñëpp kenn andiwu fii dërëm dugalaale ko fi xam nga toujours je damay wax ndax wax naa ko président de la république ah. dama ne ko gis nga ñun bu fekkoon yàlla may nañu ñu mën a dugg marché coréen wala marché euh, marocain marché public laa wax de mm-hmm. xam nga dafa am ñaari pàcc ci secteur privé mooy ma dem euh, Maroc ubbi fa entreprise di liggéey ci biir dëkk ba def fa sama usine def fa sama lépp loolu c'est permis à tout le monde mais léeg-léeg état dana génn ay fonds yoo xam ne danaan dama koy dimbale waaye du ko jox entreprise boo xam ne nii même entreprise bi c'est entreprise marocain ko xalaat jox entreprise boo xam ne marocain la mais ay étranger comme moom mm-hmm. comprendre ma la mm-hmm. léegi nag li am solo mooy ñoom buñ dikkee fii euh, xam nga foofu la léegi ñoom buñ ñu jëlee jox Sénégal xaalis dañ ko ah lebal nañ la xaalis wala dimbale nañ la xaalis wala may nañ la ko waaye suñu entreprise koy defar xam nga lu ñu ci jublu mooy qui nous exporte leur produit et leur main d'œuvre mais xaalis bi day des foofu xëy na dana dara dana dugg dañu ne 20 pour cent 30 pour cent mais ñoom ñoo koy contrôler moi je pense que li ëpp solo mooy gis nga Trump li mu doon li muy wax. Trump dafa xaw a exagéré rek dugg ci ay détails mën a xuloom déet mais. America li mu wax mooy moo moo mooy mooy mooy dëgg ah. mooy dëgg mooy nit ki da ngay fonk sa bopp. yàlla ci boppam nim tewee doomu aadama wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu su fekkoon duñ woon ay xeet. tey ñu ne olof a ngi nii tubaab a ngi nii kon àdduna bi day jaxasoo kon man li ma gëm mooy secteur privé international bi defuñu fi lu bari suñ fi defee dara rek seen réew moo jàpp seen gannaaw puus leen def leen. mais yow ci plan de relance bi. ñun nag ñun nag ñu nekk fii ci réew mi c'est-à-dire ñoom dañuy ñëw jàppale gi ñu leen jàppale waxuma ne ñun jàppale wuñu de mais jàppale bi ñu leen jàppale. jóge bitim réew ñoom dañ koy am ba pare jàppale bi état bi di jàppale. Mm. ñu séddoo koog ñun. Mm. Mm. buñ ko séddoo koog ñun nag dañuy ëpp doole. moo taxoon nga ni président. am na 3000 milliards yoo xam ne yéen mën ngeen ko exécuter. te ñu jël ko jox ko ay privé yoo xamante ne nii du yéen privé national yi nga xam ni seen lépp fii la nekk Sénégal ay sénégalais moom. waaw boobu li ma wax mooy je pense que li ma ci wax mooy 3000 milliards yi ma wax mooy li ñuy jéggaani bitim réew di fa jëndi. je pense que la comme exemple je donne exemple xam nga tey ñi ngi toog fii soo waxee kii mën nañ la wax ne ah yow local nga sol kii local non mais ñun soluñu local de lii. lan moo ci nekk local. <laughs> dëgg dara <laughs> dara nekk ci local. waaw mais au moins tailleur sénégalais moo ko ñëw. ma loolu mooy lan loolu lool lan la tailleur bi lan la loolu c'est le miette bi la mooy nga defar saako ceeb ba pare nag waa ji gàddul ceeb bi yenu ko rek loolu rek la. loolu rek parce que wëñ bi jógewu fi dara jóge fu machine bi ko ñëw sax jóge et pourtant on produit de coton. côté Tamba am na ay ay 2 millions d'hectares yu mën a produire coton. Hmm. te avant tubaab bi colonisation di ñëw sax. que bi tubaab yi di fekkoon suñ suñ maam yi. daanañ sol yére li ñuy produire ci coton mënuñoo solal ay yére. ñun mais ko produire am nañ bi du loolu li ñuy produire li tax mënuñoo soloon ñu doon produire ñoo bàyyi production parce que. gisatuñ ci seen bopp amuñ ko leen ko jëndal wala ñi taxaw léegi di ko jënd di ko jaay Londres dañ koy jënd jënd prix bu bon jàppandal mais bu fekkoon demee jël nañ Sénégal 500 milliards la ah il faut pas imaginer il milliards de produits textiles ani yoon. mais jëndoon nga usine boo xamante ne nii moom moo doon liggéey loolu mu ngi diggante bi est-ce que jàppale gi yàgg nañ laa dégg ngay sàkku ndimbal ci gouvernement bi pour mu jàppale la ci yenn fànn yi au moins ba nga mën a doxle lan moo ko gàllankoor ba fi mu ne nii loolu waaw xam nga secteur textile li la ko jox exemple li nekkoon ci Sénégal ci ay usine matoon lu mat cinq Icotaf Sotiba euh, euh, NST bari na yu fi nekkoon. ay jiin sax dañ ko fi daan ñëwee. Mm-hmm. ñu ngi may wax xaw ma quatre-vingt lan mayu coupe du monde fi lañ ko ñëwee dégg nga. am nañ mag ñi nga dégg am na koo xam ne nee na ma États-Unis la dem dugg ci benn supermarché di wut simis ñu talal ko benn simis rafet bu dëgër xëcc ñu xool ko ñu bind Made in Sénégal dans les temps. Mm-hmm. kon je parce que secteur bi moom lañ protégé wul ba chinois yi téye ko. Mm-hmm. je donne un exemple Vietnam mais Vietnam. dañ ko raser woon raser yàggul waaw mais en naan tey le secteur de textile a créé 3 millions d'habitants d'emploi 3 millions il exporte 4000 milliards plus que le pays euh, kii la le budget du Sénégal et ci textile rek mooy ñëw fii mooy dugg Amérique mooy dugg kon dama jàpp ne tey jii. yow ban protection bëgg ñu defal la. non xam nga loolu protection. mooy li am ci àdduna bi yëpp xam nga tey jii Covid bi daf ñu waroon a dimbale parce que Covid bi yaakaar naa état bi bu jëloon ay mesures. comme ni mu def ci ginaar yi xam nga bu njëkk dañ leen wax naan ay aile de dinde ak ay nangam mais ñu nee ginaar duut fi duggati. Mhm. est-ce que Sénégal est-ce que ginaar daa manqué. Mhm. gis nga tey ceeb bi ñuy wax sax ñu nee ceeb duut fi duggati waxuma ne piri bi du yokk de prix bi mën naa yokk. léegi mais état da ko war a encadrer bu ñu nee baykat bi pour mu jaay eh, ceeb bi pour mu génn ci il faut mu jar 400 francs état bi dafa war a bàyyi mu jar 400 wala moom mu ne j'intervenir des mhm. bu ko paree production bi di yokk nit ñi danañ investir ba. créer plus plus de xalaat de xam-xam. Mhm. ba nga xam ne nii prix bi dana wàcc mën na wàccaat après day wàccaat ba 200 francs suñ ko defoon loolu ci diwlin gi mu dem. voilà kon gis nga bu dee ci industrie textile lan ngay def. bu ñu defoon lan. industrie textile lan nga koy protéger. industrie textile xam nañ ko mooy euh, c'est-à-dire. Euh, bloquer importation bi wala réguler ko xam nga bloquer mënoon na da ngay xëy xëy rek dagg mhm. mais il faut nga def étude ba pare daan ne léegi woy popeline ñu ne la popeline mën nañ ko fi defar nga ne waaye popeline duut fi duggati léegi nag ñi ko doon importé waaw lu tax ñun nga ne leen kaay leen ñu toog nga ne yow da ngay di importation popeline mën naa am nga ne leen kaay leen ñu ñëw woo industriel bi ne ko kaay mu ñëw nga ne ko xoolal bii waa ji il yoo ko muy dem ci usine ba nekk sin di ko jënd kaay mu ko ci yow ma wàññi la léegi kooku da ngay gis ne production popeline mën naa am tey 20 wala 30 personnes ñoo ciy dund mais buñ demoon ba koy produire Sénégal deux mille trois mille personnes da ngay déparé ci bay ba nga déparé ba ñëw. cest ci lépp muy papier muy lu mu doon. li ngay wax nii yëpp en fait beneen inquiétude la waaw <laughs> wax dëgg ah. parce ah. que lii rek moo ñu ci mën a génne ndax ah. loolu la mbas mi wane mooy secteur privé bu am doole. Ah. yow li ngay wax ni ay idée la yoo xamante ni suñ la déggee. su hmm. suñu plan de relance bii ñu def. Hmm. prendre ko en compte. waaw xam nga plan relance bi dañu jiital. ne dañuy jox DER xaalis dañuy jox ñuy xaalis artisan yi xaalis artisan yi mais artisan yi d'accord ñu jox leen xaalis mais gis nga tey boo bëggee tey dajalee 300 artisans ku ne nga yëkkati 5 millions jox ko pour mu nekk taaba taaba cinq fois 3 xam nga 1 milliard 5. mais mën naa am boo investir woon ci benn unité buy defar dàll nga protéger ko. wala tannerie. ngay par exemple wala tannerie mais ci un milliard. Hmm. mais tu vas employer plus de cent personnes ñooñu doo leen dugalati ñu nekk di taaba taaba dafa metti xam nga taaba taaba suñ dee 300 mën naa am 10 ci rëcc. parce que yombul waaw xam nga tey. la dernière fois sax maa ngi koy wax gars yi euh, BBC ñëw fii dem fële euh, gis ñu naan Cheikh dàll mu nekk ñu di ko partage ci réseaux sociaux mais domaine boo dem ay Modou dàll ak Modou Yérek Sénégalais yi ils ont très kii te daal BBC mooy ñëw tey bu TFM demoon def reportage bi mën naa am duñ ci attirer benn attention. mais le fait que BBC moo ko def rek mu mel ne am ah, mais ñëpp xam nañ ne Sénégalais lu mu mën a doon. lu mu mën a doon dañ ci xarañ. Mm-hmm. yaakaar naa seen kii sax euh, média yi ngeen yor. ku leen seetaan seetaan waa TF1 doo gis différence bi te boo demoon ci ñoom da nga gis ne euh, mën naa am <laughs> seen benn plateau rek moom mën naa jënd mën naa jënd TFM kon man dama yaakaar ne ba léegi dañu doyloowul ñun suñu bopp. est-ce que du yéen yéen a manqué interlocuteur ku leen dimbali parce que tey jii Pape Cheikh boo demee dëkk bu mel ni Maroc le secteur privé non seulement il est extrêmement bien. Euh, organisé. ñoom interlocuteur mais egg nañ ci wutal leen sax député. bu leen di représenter à l'Assemblée nationale. pour mën di leen xeexal est-ce que yéen tamit warul leen a dem ci prise de pouvoir nga xamante di ngeen am au au niveau de. l'Assemblée nationale nga xam loi ya ñuy def ak xeet yi ñuy def ak. di ngeen fa am mooy mais attends boo demee assemblée. <laughs> waaw soo xoolee secteur privé bi ay député yu bare nga fa de. mais est-ce que ñoom ci seen bopp. mais est-ce que secteur privé leen fa yóbbu. wala parti politique yóbbu leen fa. non xam nga tey jii tamit ñun am nañ suñu assemblée. ñun li ñu bëgg suñu assemblée mooy l'État reconnaître ko jox ko doole. mooy chambre de commerce te bu bu bu bu kiyee rek bu bu bu bu xoolaatee li dana ko gis damay jox exemple. Mm-hmm. avant indépendance lan moo amoon soo demee chambre de commerce Dakar xam nga doo fekk ñu naan la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture demal nga xool ba tey chambre de commerce. point moo fa nekk mm-hmm. parce que xam nga lan commerce service la. Mm-hmm. fii service commercial mooy service bi gën a sensible suba buñ ko tëjoon fii mënatul dox euh, cinq mois yu mat. commerce lépp am commerce baykat bi commerçant la bu njëkk lan la woon mooy bu ñu defee seen élection parce que chambre de commerce li tax ñenn ci secteur privé yabuñ ko yabuñ ko mooy chambre de commerce dafa démocratique c'est-à-dire bi dafa compliqué. Mhm. c'est très compliqué neuf élections la. ah moo tax jafe na pour mu am de. waaw moo tax. coow lu bëree ci coow c'est normal. Mhm. léegi nag li ñu état mën a dimbalee mooy mu tenir pour organiser ko. ñu ñu ñu changer représentation bu ñu ko changer nag parce que bu ñu ko changer dëgg mu jaar ni mu war a jaar suñ toogee di wax ci taabal ji euh, nappkat bi dana ci gis am na ko ko fa toogal te dañ koo élire jëlun rek ne man napp nappkat transporteur yi am na ko ko fa toogal commerçant yi am na ku leen fa toobal commerçant yi ñetti catégorie yëpp indice ñetti catégorie mel na commerçant dafa am première deuxième catégorie mooy euh, taabalkat bi ak commerçant bi ak euh, commerçant bu mag bi importé industrie am na ku fa toogal ñooñu seen bopp ñoo su fekkee nim jaare la war a jaare kenn ku ne yow xam nga ne ay opérateur économique doo wotel koo ñeewul xam nga li ma xam nga association yi moom da nga gis koo xam ne nii yow daf la fa daf la ëpp wax dafa dafa kii rek toog fa ne maa fa toog te amul amul amul changement.